ñi ngi dikk ak yéen ci li nga xam ne moom mooy jagle yi nga xam ne yàlla jagleel na ko li nga xam ne mooy koor waaye ba gannaaw loolu ba balaa loolu dañuy dugg ak yéen dañuy fàttaliku leen rek mooy démb ñu ngi doon waxtaanee lu am solo muy xasatul badr muy xare bu métti woon waaye nag xare xase xare boo xam ne xare bu neex la ci mujj gi ci saxaaba yi ñu ngi ñaan yàlla saxaaba yooyu yàlla na yàlla defal leen ngërmande comme ko alquran waxee radiyallahu anhu wa anhu parce que kon nag li mën a xew mooy amel nañ leen jukkal fu ñu toll war nañ leen a ñaan yàlla muy xare bu jafe di fàttaliku na am na loo xam ne fàtte nañ ko wax sax mooy sidna Ousmane mi nga xam ne absenté woon na ci xare bi mbooleem saxaaba yëpp teewoon nañ moom mooy moom waaye li waroon mu absenté mooy soxnaam moo feebaroon dégg nga de ba mu mujj génn àdduna yonente bi mayaat ko beneen soxna ñu Umu Kalsoom na ko su mooy roq yow ma nekkoon soxnaam moom gaañu may ko Umu Kalsoom mu ne su am su ma amoon téeméeri doom yëpp dama la koy may kon nag loolu lu amee lu muy tegte lu amee lu muy jàngale mooy ne olof yi am na ñuy faral di waxoon nañ di ko bàyyi mooy boo takkee benn soxna mu gaañu nga takkaat beneen mu gaañu ñu gaafal la kon gaaf amul ci loolu kon nañ ko bàyyi bu baax a baax kon loolu mooy xare Badar te mu nekkoon timit ci période boo xam ne période métti la mooy période weeru koor ngay xeex ak noonu ànd ak koor ci jamono joo xam ne jamono ju tàng la léegi su ko defee nag dafay tàng ñaan du mën a oor nga gis am ñoo xam naan dama am ngànt damay liggéey nangam ak nangam te amul lu gën a métti xeex xeex xeex jaasi ak ay xej ak ay paaka di daw di dem ak dikk lu dara gën koo métti waaye ànd ak loolu yëpp saxaaba yi ñu ko kon nag ngant li tax nga or yombut yombut mooy nga feebar feebar boo xam ne amoo amoo doole pour lekk amoo doole amoo doole pour or ngant lu lañ wax mais ngant pour damay liggéey war maa na ko nit ñi bàyyi góorgóor lu baax fàttaliku saxaaba yi nga xam ne tey ñoo xeex ba lislaam ak si fii bañ koy def dañoo oroon tey nag lu ñu dikk ak yéen mooy jagle yi nga xam ne am na ci biir woor weeru koor jagle yooyu buñ ko bëggee wax dañuy dellu ci xadis bi nga xam ne euh, salmaanul farisi moom moo ko déggee ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam salmaanul farisi kenn ci saxaaba yi la dëkkoon faris ñuy benn waaye trahir ko def ko jaay ko jaam ñu andi ko madinatu munawwar mu nekk foofu di liggéey bu yonent bi gàddaay ñëw madina mu dégg histoire am ko gëm ko ba mu ko gëmee nag yonente bi daal di ko jël tapp ci boppam boole ko ci ahlu bayti salman min na salman ahlu bayti salman bokk na ci ahlu bayti salman moomu nag moom moo dégg wax ji ci yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na yonente yàlla muhammad ci fan yu mujj ci weeru weeru saxbaan mooy weeru baraxlu daf leen doon xutb loolu yonente bi wax daf ne ayuha nnaas yéen nii qad azalakum shahrun azim na ngeen xam ne keral na leen weeru mag shahrun mubarak weeru barke mu ne chahrun fii laylatin xayrun min alfi chahr weer la woo xam ne bokk na ci ay jagleem mooy am na ci biir weer wi guddi goo xam ne moo gën junney weer mu ne weer la woo xam ne yàlla def ñiy or bëccëg gi mu nekk farata wa qiyaamu laylihi tatawaan ñii naafila guddi muy nekk loo xam ne ñoo ko coob réew ñoo volonté wu ko waaye du mais jëf ju baax la boo xam ne ñoo volonté wu mu ne nag wa man taqarraba fihi bi xaslatin min al kaana kaman adda faridatan fi ma sawa mu ne weeru koor nga joxe ci li nga xam ne mooy lu baax nga def ci lenn lu baax dafay mel ni da ngay mel dafay mel ni ku def farata ci lu dul weeru koor mu ne wa man adda fii faridatan kaana man adda sabiina faridatan fi ma siwa biir weeru koor nga def ci farata dafay mel ni nga def juróom-ñaar fukki farata ci lu dul weeru koor ñu ne wa huwa shahru sabr mu ne weeru koor weeru muñ la waaye nag wasab wasabru sawabuhul janna ñu ne muñ lan mooy fayam ñu ne luy fayam mooy aljanna wasaru muwasaat weeru dimbalante la wasaaru isdaadu fii risqil mu'mina fii weer la woo xam ne dañ ci dolli wërsëgu jullit bi mu ne waman fattara sa képp koo xam ne dogal nga ko or magfiratan li zunubihi dafay nekk loo xam ne daf koy jéggal ay bakkaar weeru koor nit oor ba ngoon jot nga dogal ko nga dogal ko ci biir weeru koor mu ne su boobaa da dafay nekk loo xam ne dafay euh, daf lay dafay jég yàlla daf lay jéggal say bakkaar ci act boobu nga def mu ne wa ataqa wa ataqa raqabatahu min an naar waaye du am ci rek jégal ko ay bakkaar mais daf koy goral safara su ko defee nag wa kaana mislu ajri min min gayri an yanqusa min ajri shay mu ne ki nga xam ne dafa dogal ko or nit or tey ba ngoon jot nga dogal ko moom li muy am ci fay danañu jox lu toll noonu te du wàññi daram ci ay fayam moom après ba yonent bi waxee loolu qaalu ya rasulallah yonent saaba yi na ko yow yonent bi laysa kulluna yajidu maa yufattiru saa'iman du ne ku ci nekk moo am lim dogalee ko or am na ñoo xam ne amuñ dara amuñ xaalis naka lañu def يندبنا يعطي الله هذا الثواب من من افطر صائما على تمرة او شربة ماء او مذاقة اللبن من يالا دينا جوخ فايب كيغا خامنا دا فا دوغال كو اور موي سو فكيه داف كو جوخ بن تاندرما مو جند بن تاندرما كيسا nga جوخ دي نكو ام دو ولا nga جوخ كو بن غوخ ندوخ مو غوخ كو ولا بن كا بن كاس سو مو نان كو su booba da nga am fayab képp koo xam ne awaluhu rahmatun njëlbeen njëlbeen bi yërmande yàlla danañ ci waxtaan incha allah wa awsatuhu maghfiratun digg bi mbaax yàlla la kon yàlla nañu yàlla jégal ñu ngi ci digg bi mooy ci yi nga xam ne ci la yàlla di jégalee jaam yi nañ fan yi nga xam ne mooy ci la yàlla di yërmee jaam yi yàlla yàlla yërëm ñëpp wa axiruhu itqu min mu ne mujj nag moom mooy yàlla day goreel jaam yi safara mu ne képp koo xamante ni man xafafa an mamlukihi xafarallaahu la ku amoon tey sa jàmm di ko liggéey la du ko teg yenn chargé yi ñi dem ba biir weeru koor nga nga oyofal ko liggéey bi su fekkee da liggéey 10 nga defal ko cinq bu doon liggéey journée bi yëpp nga nga def ko moitié journée bi mooy nga def muy liggéey ba mu di wàcc su boobaa yàlla dina ko jegal ay bakkaaram ngir coono bi nga xam ne tegal na ko ci weeru koor mu ne nag biir weeru koor wastaksiru fiihi arba'i xisaalin nañ fexe bay bëril ñeenti jikko ci biir weeru koor xaslatay xaslatayni tardawna bihima rabbakum ñaari jikko yi mooy da ngeen fexe ba sàkku seen ngërmande borom ci ñaari jikko yooyu wa xaslatayni laa xinaa bikuma anhuma am na ñaari yoo xam ne lu ngeen am am am mu ne leen doy lu wëris ko il faut ngeen soxla ko mu ne ñaari njëkk yi nag yi nga xam ne da ngeen sàkku da ngeen sàkku seen ngërmande borom ban nag ban la mu ne fa shahadatu an laa ilaha illa allah wa tastaxfiruuna ngeen bëral di tudd yàlla di wax laa ilaha illa allah laa ilaha te it ngeen jéggulu yàlla ci biir weer koor mu ne wa amma lataani laa ginaa bikum anhuma mu ne ñaar yi nga xam ne lu ngeen am am dangeen ko soxla amut kenn kuy am ba doylu ko amut mooy lan mooy fa tasaluuna fa tasaluuna allah aljannata wa bi bihi min annaar mooy na ngeen ñaan yàlla aljanna di muslu yàlla ci safar mu ne nag képp ku suural ku or yàlla nee na yonent yàlla Muhammad nee na yàlla dina ko nandal ci sama dex gi sama géej gi nga xam ne man yomal yomal xiyaama man yonti yàlla ma la ko yàlla defal dina la naandal ci sama dex gi te boobaa doo mar tànk dugg aljanna kon yi bokk na ci xasaay si nga xam ne yàlla may na ko ci weeru koor waaye incha allah dinañ ko détaillé benn par benn mu gën a leer asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu